ñu dem ci élément bi mujj may Maimouna Ndour fay njiital 7TV yëkkati na ay kàddu daal ci wax ne Ousmane Sonko ragaluñu la ci li xew ñu dem déglu siwaat Et je le dis, c'est le Premier ministre Ousmane Sonko qui a donné ordre de, de, de, de bloquer tous les comptes bancaires des groupes de presse concernés. C'est-à-dire qu'il ah, y a des gens sournois qui sont là. Non, non, ko Ousmane na qui est nous pouvons le régaler. Non, non, mais qui est gëm l'autre. Gis nga ñun boo ñu étouffé économiquement on a des moyens pour survivre dañuy man chaise bi kenn mënuma ma fee tere toog pendant cinq ans li ma xalaat dinaa ko wax li nga wax lu waxu dinaa ko wax li nga def lu deful dinaa ko wax waaye tamit li ngeen def lu baax dinaa ko wax. mais li ma doon wax. c'est-à-dire ki la wax ne dañ la ragal wala yow mun nga mun nga tax ñu ragal la kooku dalaa nax les propos yi nga tënee ci ñun nag man dee baal naa la ndax man dama respecté kilifa. duma la traité de délinquant dama la dama respecté kilifa mais nag moytu di tenir des propos offensants en ce qui nous concerne parce que gars nañ la tontu buggaan tontu na la. mais li ma doon jot yeneen tontu. li ma doon wax ki la wax ne dañ dañ laa ragal da nax on sera la <laughs> on parlera. et rien ne nous empêchera de parler dóoral impôt bu ñu jox publicité xeex ñu defal lu la neex ñun nous sommes des sphinx on renaît toujours de nos cendres. mais li ma doon. essayer de gagner du temps wala mi ngi noonu Maimouna Ndour Faye Bécaye ci mi ngi yónnee message ñu ngi koy siyaare baax a baax Bécaye gis naa Assane démb estati la grand bu rafet nga sol ko tabaarakalla waaw xam nga ko Assane fii la lay sànnee xeer mais ci suuf yaay waayam gis naa mu estati la grand bu naa nice bi nga sol boobu boo ko simee indil ma ko Bécaye. ah mooy sànq ba ah, na de aywa. noo déggee may nee na waa ji su ko neexee. bu mu leen jox publicité te ki mu wax du président xam nga président rek yaakaar naa ni mooy kii yooyu ndax ñoom defe naa ni président moo mën a séddale marché publicitaire yi nga xam da koy jox RT da ko doon jox RTS a publi séddale mais ba léegi lépp a ngi dal ci kaw Ousmane Sonko nee na itamit 16 ans bi dina fi toog 5 ans comme ni nga ko déggee nii ragaluñ ko. waaw may mën a de sooy wax na dëgg. Hmm. waaw premier ministre bi moo yore gouvernement bi moom lay waxal. mooy Ousmane Sonko bu ñuy wax moom la ñuy waxal ndax moo yore gouvernement bi moo tànn njiiti jëwriñ yi ba tey kooku kon jur ngay jàll sa président bi mën ngaa yem ci moom. ba tey marché publicité yi ne ko indi. kan moom Ousmane Sonko. premier ministre séddale ko groupe de presse yëpp. ba tey moo jub jubal jubbanti. ba ni ñu daan def yëkkati ko jox ko benn groupe de presse wala jox ko ñaari groupe de presse déedéet bii dañ koy séddale ren yëpp. ñëpp jot ci loolu jaat na beneen bi it mu xama xamakuñ ragaluñ loolu dafa am solo ndax bu fekkee ni kii nañ dañuy yaakaar ne ñoo ragal loolu mu xama ko ba mu xam ko xam ne may mu ne duur mii te li wax lu am solo suñ defee lu baax mu ni ah lii ay la baax na suñ defee lu baaxut mu ni ay la yeween lii baaxut suñ defee lu normal mu ni normal na buñ defee lu normalut mu ni normalut hmm. mu ni moom dëgg la fi nekk système bi dana fa toog cinq ans man daa war na fii laay continuer di toog di suivre réew mi ba ba ngeen fii nekk ba ba ngeen fiy jógee may chiffre réew mi di wax ni mu xewee mais bu ko nattee 5 ans dañuy yaakaar ni moom mandaam bi nga xamante ni mooy màndaa waa kii bi mandat boobu la koj yamale ci lim war a wax te man te waxam. war ah, naa xeex ak ñoom ci mandat bi daal waaw. te ay waxam war naa war a weesu. daa bëgg a wax ni rek ci durant seen mandat cinq yi ngeen fi am. Mhm. damay te wéy di wax sama xalaat. waaw daa war a wax si daa war a wax naa man dinaa ànd ak yéen di wax na ma daan waxee rek amul sensé waaw wala sax mu bañoon ko wax jurutoon wax. mën naa continuer di yow il faut nga jàpp ci benn. voilà lii lan la. joxe hélas. lii la waroon wax. wala mu wax lii wala mënoon na ko sax bañ a wax. loolu mooy da nga jàppal ci lii ma jàpp ci lii. non continuer xam nga nit ñi moom. da ngay nekk ci li nga nekk rek liggéey ñoom ñooy jékki-jékki daal lay siisee nii jékki-jékki siisee la nii jékki-jékki siisee la nii mais xoolal li nga xamante ni moo jaadale nga di ko def. d'accord voilà. joxe pare nga ci. Njogu. waaw. Ah. noo déggee menace ca Sen waa xam nga ragal moom képp koo dégg muy wax ne ragaluma rek ak ragal ci moom. Hmm. li muy ragal nag moom moo ko xam. waaye mbir mi du ay question lu ñuy ragal ak lu ñu dul ragal. Hmm. mbir mi. ay impole la yoo amee réew mi. ñu ne la fay ko nga ne yaa ngi may xeex. Hmm. loolu moo jaaxal nit ñi. du dëkk. waaw kenn waxu leen dara. ay impôt la yoo xamante ni bii moom nga war a fay ñu ne la fay ko nga ne yaa ngi may xeex léegi daal yow da bëgg a toog ne fayu ma ku ma ne fayal ma ne la yaa ngi may xeex ñoom ñii kañ ñoom ñoo bëgg a def pression. waaw léegi nag bu fekkee ne dem na nag ba për moom changé le camp loolu mooy Ousmane premier ministre teg na benn jéego parce que presse bi moom dañ fi daan nekk rek di nappe. ak a tiitalaate ak a xooqatal mhm. buñ demee nag ba presse bay taxaw ñaan ñun ragaluñu kon léegi c'est bien que ni léegi presse bi ñoom ñu ngi taxaw naan ragaluñu mhm. kon léegi loolu rek day wane ni changement am na coppite mhm. waaw parce que président Macky Sall ku ne gis na ragalam presse waaw dëgg la dafa ragal presse lool ba taxoon presse bi ku sëqat mu jox la dara mosal la dara bërki démb rek dégg nga Serigne Saliou ne am na ñoo xamante ne daan nañ jot cinquante millions par ah, weer moo tax presse bii dañuy daanu daanu ñeneen ay ñëw mais bii dañu wax daa téye loxo parce que tàmmu ñoo liggéey dañoo tàmmuta liggéey daan joxe cinquante millions daa téye loxo waaw noonu nekkatu bi état ko daan joxe dégg nga mu ne état daan na joxe cinquante millions am na ñoo xam ne bi daan nañ jox ah, cinquante millions ñu joxe cinquante salaire régler seen i mbir ñëw ñu état continuité la. waaw continuité ba ci di la jox. cinq millions yu teguut fenn nga ne continuité la <laughs> cinquante millions yu teguut ah. mooy continuité loolu ku ci continuité. ah <laughs> loolu fi mu xaalis yooyu moom lañ dajale di ci fay eh, baykat yeeg di ci fay kii opérateur yeeg di ci fay tamit kii xaalis boobu la mooy bi nga xamante ni bi ci la ñuy fay li parce que yi nga xam ne bi moom moo daan dem ci fudut noonu. ak ñi nga xamante ni bi dañ leen daan jël muy ay emploi fictif yoo xamante bi kenn xamu leen yooyu la état di jël fi mu toll ni di ci régler ay yenn problème yi jafe-jafe yi comprendre nga ak tamit impôt yi nga xamante ni bi moom lañ war a fay naan fay naan ragaluñ la mbir mi dañ koo bëgg a jël ñoom orienté nit ñi ba mel ni dafa nekk xuloo entre Ousmane Sonko ak presse bi Ousmane Sonko jotewut ak presse bi dara vraiment jiitu gouvernement la gouvernement bi di liggéey mu ne ñi nga xamante ne bii doonuñu woon fay impôt dinañ fay impôt. Mm-hmm. lu ñu amee réew mi danañ ko fay. loolu mooy liggéeyam Ousmane Sonko bu fekkente ni defut loolu defut liggéeyam. Mm-hmm. léegi ñu ne ko ñoom bu mu def liggéeyam. ba noppi nag bëgg ne ko boo defee lu baax lii lu baax la kañ loolu dañ ko war a wax. boo lu baax dinañ ko wax. Mm-hmm. kon kañ dañ wax ne impôt fay impôt yi moom lu baax la. ndax fay impôt day dugg ci gafaka réew mi. waaw ci gafaka réew mi la jëm. loolu lu baax la. fay leen impôt yi ah. affaire ah, lu baax la bu fekkee ne bi lii moom du ko wax. parce que ak ñoom. <laughs> baaxul baaxul ci ñoom ah non non non non dama la bëgg a xamal lenn dama la bëgg a xamal lenn. Hmm. ñoom nañ xam ni combat bii mënuñu koo gañ gis nga nag euh, journaliste yi. Hmm. Euh, ñoom ak chauffeur yi dañoo bokk même jàngoro. journaliste yi waaw ñoo ak chauffeur yi. nuñ bokkee jàngoro. Euh, luñ bokkee jàngoro. journaliste yi fi mu toll nii ñoom féeteeg état moo gën ci ñoom. ay waay Samba. journaliste yi laa war dañoo war a féeteeg askan wi patron de presse yi hmm. ah, leen di noot di leen awloo fu leen neex waruñoo féeteeg état kay kon ci digg bi rek di àtte. te te télé télé boobu nga xam ne moom ku contre ko léegi ñëw dugg. jël dégg naa jël nañ doomu Moustapha Diakhaté bi contre Sonko. jël wala wala Kosinga. non de a ah, <laughs> non daa am ku ma jël nañ ko fa. maa ngi daa fa ah. ah, contre Sonko. Mm-hmm. man kay yow laa xamul lu tax ba tey jëluñu la. man man. <laughs> <laughs> yow yow yow yow yow xam naa gëmuñu sa contre Sonko. waaw ah, waaw parce bu doon dëgg la ah. day day day man yow sa contre Sonko moom bu dëgg woon. <laughs> day day xaaral ah, ma dem ba def émission moom. ma leen Ousmane Sonko mi da dogal bii ko yàlla def ku ko nangu da dee. bu boobaa nga génn émission ba de. boobaa bo bu boobaa bu micro bay daaru kay génn émission ba waaw en tout cas de en tout cas daal xam nga ne fi mu toll wax dëgg fa yàlla mm. hmm? les loolu la ah non non dañuy wax seen xalaat non dañuy wax seen dañuy wax seen xalaat rek ah, ah, dañoo rek contre Sonko non non ah, ñi gën a contre Sonko moom dañuy fees dañuy am kii waaw daal xam naa ne waajooju kii léegi léegi tey ñu euh, jële ko fa sax boo defu ndànk Serigne ñaa a ah, non non ban jële non. sëriñ ah, xam nga ko ah waaw sëriñ. Ah. ah kii Talla gisatuma ko de anam. Omar Talla. Omar mi ngi dem ak a ñëw. Omar Talla waaw mais du ñëwatul lu bari de xam nga Omar Talla bon. Mm-hmm. mais loolu nag moom baaxul moom. Hmm, non non loolu moom baaxul. ah dafa contrôle Sonko boo contrôle Sonko rek. moom loolu moom baaxul. il faut que di ngat Sonko bu baax. gisoo ñi ànd ak moom ñi ànd ñoom <laughs> yow Ndiaye avion gisoo leen ma il faut nga dingat ko bu baax. <laughs> il faut que dingat ko bu baax a baax. di man di ñëw bu baax gisoo Ndiaye avion ba waa ji jëwee wax kii ba. wax wax prix. Mhm. mu ne non Sonko waroon a ñëw ah parce que moom moom lañ doon xaar. waaw wax dëgg waaw Ndiaye Ndiaye moom. loolu sos moom xol bi moom dana. wax Ndiaye roppalaat. Mhm. aywa mi ngi noonu.